au métier de l'économie suñu école bi nga xamante ni fofu lañuy tagaté ndaw ñi ba nopi daal di leen di dugal ci ay bërëb ñu daal di tàggatu Cheikh Ahmadou Bamba Mboup moom moo ko di initier mbokk yi xale yi nga xamante ni sérigraphie lañu bëgg mën nañ leen défal formation durée 15 jours informatique bureautique itamit am nañu ko pour une durée 2 mois formation certifiée agriculture élevage informatique entrepreneuriat restauration sérigraphie mécanique auto gestion de caisse infographie maraîchage Il y ci yo xamanteni ni durée bi 3 mois la yi 1 mois yi 15 jours amna sax 5 jours te li ci gëna neex moy am nga attestation bo xamanteni ni dinañ la ko délivrer bis bo paré sa formation ba paré nak ñu dal di lay tek ci benn bërr boo mëna liggéey mbokk yi attention nombre de places limité ouverture des inscriptions c'est à partir du 13 février mu mel ni tàmbali na ñu parcelle à unité 22 villa numéro 244 téléphone 33 857 19 77 460 37 37 institut bi mooy dimbali ndaw li ngir ñu am xëy. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Message au peuple sénégalais, à la jeunesse sénégalaise. Ousmane Sonko avait dit qu'il y a un lien particulier entre la jeunesse et lui. Je pense que ni ce lien-là, tay warna jot ñu suxat ko ndax il nous a tout donné ñun le peuple sénégalais surtout la jeunesse sénégalaise Tay Ousmane Sonko jaanam wàccu na ñun nous sommes dañu bàkkee peuple sénégalais peuple émotif ce lu ñu bëgg.

la vie de Ousmane Sonko est en danger et la vie de Ousmane Sonko est plus chère que que lépp lu war sa vie doit être plus chère muy focus muy projet muy lu mu mën sa vie Si ñu nangoon nangu nañu ñàkk lépp nous ñu ñàkk Ousmane Sonko te bu ñu seetaanee ba ñàkk Ousmane Sonko ça serait malhonnête de notre part gars Ousmane Sonko deful grève de la faim. dafay résister ndax Macky sàll moo ne ko say njaboot duñ la toggal indil la man maa lay jox looy lekk te dans l'histoire du monde loolu ay droit la yu gën a primaire ci droit wu doomu aadama tëj nañ fi Khalifa Sall ay njabootam ñoo koy indil muy lekk sans excès dans le calme tëj nañ fi sa Seck bañ na ko ba bool bi biñ ko doon tibbal da ko doon kànnaare mooy yor caabi ji ak ki nga xam ne moo koy indil lekk bi Karim Wade pareil mais pourquoi Ousmane Sonko bëgg nekk exception parce que Ousmane Sonko jàppee wuñ ko acteur politique jàppee wuñ ko euh, li nga xam ne moom mooy rival politique wala adversaire dañ ko jàppee ennemi dañ ko jàppee l'homme l'homme à abattre kon nag Sénégal Ousmane Sonko suy dund lii lépp ñun sénégalais ñoo tax ñun jeunesse bi ñoo tax ngir yàlla ak yonent bi nañu sauver Ousmane Sonko sauver suñu bopp ndax li ko dal yëpp ñun la te xamala moo tax ñi koy gën a ñi noon bi di gën a di ko gën a soxor di ko gën a def lu soxor parce que danaan ñun peuple bi dañ ko abandonné te Ousmane ñun peuple bi la yaakaaroon ñun peuple bi la dénkoon boppam dañ na ko ba dernière déclaration Casamance nee na man maay kan man nan laa toll man su ma demee su ma amee lii tey peuple sénégalais jeunes Sénégal yi ñoo ma tax ma am ko kon tey jeunes yooyu tey buñ ko abandonné kon ñun ñoo tax tey mu nekk ci situation yooyu parce que biñ koy téye biñ koy boot di ko roganti kenn ñemewu ko kenn ñemewu koo laal te ñun ñoo doon taxaw naan boo ko laalee ñun ñoo doon taxaw naan ko ñun pare nañu au sangage la patrie ou la mort pour lan pour changer système bu fi nekk. est-ce que dañuy nangu minorité de rien du tout bii néewal doole suñu jàmbaar ji ba rey ko après ñu soog a génn parce que Macky Sall moom tôt ou tard dañ koy génne ci pale bi tôt ou tard dañuy xeex ak moom mais nañ ko def léegi balaa avant qu'il soit trop tard. bu ñu seetaan ba mu briser suñuy rêve bu mu seetaan ba mu rey parce que ñoom amuñu vergogne amuñu yërmande amuñu lu ñuy xool amuñu lu ñuy jomb amuñu lu ñuy bëgg ñoom li ñu bëgg mooy jikkoy mbaam la yoon yor li ñu bëgg rek la ñu xam te li ñu bëgg mooy éliminer Ousmane Sonko amuñu gàcce ndax du ñu réfléchir ëllëg ñoom buñ ko reyee duñ ci génn mais seen yoon nekku ci amuñu xam-xam pour prévoir lii xew suba ñoom li leen intéressé tey moo leen ñoom moo waral ñu jàpp ay médecins am tëj jàpp léppam tëj ba pare ne ñoom suivre kon instant bi Macky Sall Ousmane Sonko il est à 100% de la main de la de Macky Sall et son gouvernement de la main du système tak ñen xam nuñ ko yéné lu bon kon nag gars je pense que ñun ñoy responsable bi je pense que ñun le peuple sénégalais ñoy bëgg nek ay jaam ay jaamfan muy yaay muy papa muy mère ñun ñëpp nañu def une soulèvement populaire génn jàkkaarloog nguur gi ci pacifiquement ndax askanu Sénégal yëpp suñu génnee taxaw nguur mu mënu leen mënu leen gazé mënu leen def dara te bu boobaa yàlla dinañu gërëm yonent bi dinañu gërëm bu ko jaree juróom-ñaari ajjuma bu ko jaree cinquante ajjuma chaque ajjuma buñ jullee ajjuma ba pare ñëpp nekk ci mbedd yi buñ jullee ajjuma ba pare ñëpp nekk ci mbedd yi ñu libéré doomu jàmbur yi ci kaso bi Ousmane Sonko mii ñu bëgg a jël bakkanam ñu taxaw Mali noonu lañ def juróomi ajjuma bañ ko defee nguur gi dafa daanu ngir yàlla ak yonent bi loolu du am rayante du am lacrymogène du am nervi du am dara askan wu yëpp bu génnee kenn du leen gazé ngir yàlla sunu yaay yi sunu papa yi jug leen ngeen ànd ak ndaw ñi kenn du leen gazé ndax yéen a ñuy couvert ñu génn ñu xam ne lii nekkatul mbirum parparloo wala mbirum parti wala mbirum nation la mbirum askan wi la mbirum patrie la ngir yàlla ak yonent bi les gars nañu sauver suñu bopp nañu sauver Ousmane Sonko ndax bu ñu ñàkkee Ousmane Sonko ñun ñoo koy ñun ñoo ciy gën a ñàkk te bu boobaa on sera jamais quitte avec notre conscience parce que lépp lu mu dugg ñun ñoo ko ci dugal lépp lu mu nekk ci fitna tey ñun ñoo ko ko teg ngir yàlla ak yonante bi ñoo ko puus di ko jañax di ko jaay di ko puus di ko di ko di ko kañ ba mu nekk ci ay xat-xat ñu toog naan yàlla baax nag ay non Macky Sall ñemewul léeg sañu lii gars yi yàlla sunu borom loo ne du ko seetaan seetaan na lu ko raw te ñun lii dañ cee am saafara yàlla duñ ko saafaral xam nañ li koy saafara mooy askan wi jóg jóg ànd ak ànd génnandoo ci mbedd yi ne lii dafa doy. nawetaan yi di yuuxu Sonko baax na jeunesse bi mais man jamono ji yàpp naa ne tooruñu woon sax tal nawetaan.

xeex nañ ba mu des six mois li ci des bareetul li gënoon lu metti romb na kon nañu jug xeex ak ñii mu jaral ñu lépp lu mu leen jaral ndax ñoo am lu ñuy perte ñun amuñu lu ñuy perte ñun amuñu dara amuñu liggéey amuñu xër léegi xajatuñ sax sunum réew bay dugg ci gaal yi di jaar yoonu Nicaragua kon ñoom ñoo am lu ñuy perte ndax ñoom ñoo ay ay milliards ñoom ñoo ay doom yi jànge ñoom ñoo am ay kër ñoom ñoo am lépp kon ñoom ñoo am lu ñuy perte les kon ngir yàlla ak yonent bi Ousmane Sonko suy on le laisse dans les mains de Macky Sall daf koy ray parce que Ousmane Sonko borom bañkat la borom jom la nee len sama lekku keur lay lek deful grève de la faim ñu ne ko ñoo lay indi lek mu len kon du ngeen kon kon nu golo xam boote doomam te inshallah allahu rabbi il va résister jusqu'à sa mort ta bu déwé dinañ am yarangé gars nañu goré le message est tellement clair que ñun ñoo yor suñu destin en main ñun ñoo mën a sauver le Sénégal ñoo mën a sauver suñu bopp waaye ñoo mën a bañ a nekk ku ñu ingrat ñu nekk ay jàmm à jamais te bu ñu seetaanee ba l'irréparable ba am on sera jamais quitte avec notre conscience te yàlla dinañu ko laaj kon nañu jug yàlla jàppale ñu peuple malien gënuñu peuple Niger bi gënuñu ñun it waruñu ñoo nangu kenn gënuñu Ousmane Sonko wàccoon na ak ñun Ousmane Sonko grève de dalaa fin Macky Sall moo koy jàpp di ko torturer moo ko jàpp di ko toroxal di ko xañ lekk jël ay médecins yam tëj jël lépp daal koy téye ci ci hôpital moom ak ay nitam kon lépp lu dal Ousmane Sonko Macky Sall looloo jarul wax waaye Macky Sall dawul gàcce dawul coow. xamul maanaam prévoirul moom li mu bëgg tey la xam te li mu bëgg mooy rey Ousmane Sonko li ciy topp yoonam newu ci. kon gars yi nañu xam loolu ñu gën a taxawaat ñu gën a am jom gën a xam ni ñun ñoo mën a libérer peuple bi ñu def une soulèvement populaire libérer le Sénégal à jamais jaa ngeen jëf.